sur 70 km dafa presque fer xëy na daanu ñëw pour gasaat ko defaraat ko ouvrage yu ko jotoon a nekk le euh, professeur secrétaire exécutif sax moom bi qui diriger kii moo ouvrage yooyu ñu defaraat pour ndox mi gën a romb loolooy première composante Benen composante bi nag moo ñu jëlee ndox mi de Mbula am def ko ci ay canal à ciel ouvert yobuka ko ba Linguère beneen bi mu jëlee ko foofu yóbbu ko ba Daara ñoo ngi ci liggéey bu baax. projet la yo xamni projet à court terme la manam moy projet yu ñu war defar fi wak ñaar ba ñetti at ñoo ngi ci liggéey te am nañu yaakaar inshallah allah objectif boobu daan ko atteindre.